commune Tiralu Malicounda mu ne leen si sama mbuur noonu la ko wax keroog amul si be saal yi gën bakken si biir kër gi dugal na ko fa bi xéewal yi ñëwee ñu teg ko ñun pour ñun dañuy xaar ñëw ñu tibbaale xéewal yi ndekete lool mooy bernde yi pour pour pour ñun buñ kii rek ma ne noo gars yi xaar leen ñii dañuy àndi bool yi pour defar pour pour pour kii waaye bi bëkk néeg bi ñëw ne lu ngeen di xaar ma ne ko atti bëgguñu añ yi mu ne ma lii mooy añ yi de sëñ bi nii lay séddale ñu nekk fa bi ñu xéewloo ba pare ndeysaan bi ñuy wàcc mu dugg si néegu biiram ndeysaan dal di jël foofu xaftaanu ñetti abdu mu andi jox ma mu ne Sëñ Mbay Jóob yi ma doon barkeeloo taalibe yi ñoo ko doon jënd di ma ko jox waaye bii nag maa ko jënd si samay xaalisu bopp doon ko ñawlu ko sama xaalisu bopp doon ko sol si sama yaram wi moom laay jox sëñ Ousmane mu yóbbaale ko wallaay yàlla xam na ko loolu le 28 février la woon moo tax man le 28 février bu ne duma ko siiwal mais damay jël ay tànn ay jàngkatu alxuraan tànn leen defar ay bernde ñu wàccel ma kaamil ma tudde ko sant sëñ Saliou le 28 février bu nekk damay damay damay damay damay def loolu damay def loolu kon nag maa ngi fasanteeg yow kóllëre di la wax ne incha allah si kàttanu yàlla kii fii la andi ma andi ma fii sama jigéen la sama xarit la sama lépp la lép lum ma digal yàlla xam na ko ku ma mënoon a danaa ko jàpp rawati nag waa kër sëñ Touba waaw man soo demee Ndiassane xalif général bi cellule communication man maa ko jiite démb bi fa président Macky Sall fa la jullee ajjuma benn kàddoo fa am man maa ko wax après euh, euh, porte parole bi ñaan ñu sa Macky Sall wax ñu ñu ñu ñu yeeyu yëkkati joolaay voilà sa kanam kon boog donc ñun foofu lañ si loolu lañ nekk mais daal jàppal ne daal lépp loo nekk te si kàttanu yàlla suñ ko yëgee te yàlla mu fekk ñu wér ak tal bu soob yàlla yonent ba dinañ ko bokk dinañ ko bokk yow waaw boole ñu si taalibe yi jàppal ni ñun taalibe rek lañ mën a nekk seen kanam du ñu ay autorité mukk ci seen kanam taalibe rek lañ mën a doon ci seen kanam waaw ndax nag maam sëñ Touba képp kuy yéefar sax da nga ko amel njukkal rawatina nag ñun jullit yi waaw rawatina nag ñun jullit yi kon kenn ku nekk ci ñun waru gar la ak taxawaay lépp lu xeetoo ci sëñ Touba rek ñu taxawu ko waaw loolu nag ñun moom dañ siy góorgóorlu Ah, ndax ñun yeen rek la am te lii nii rek ngeen di def moom mooy loolu rek moo téye réew mi ba léegi moo téye réew mi ba léegi kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. dugal nga bii bu rëy ndax ku ne xam na ne tey xat na lool xam na kilifa réew mi war fee ñëw waaye danga nga bàyyi yitte yëpp ñëw ngir sëtu Serigne Touba. waaye soxna Xadim mi kenn du moom ndax fan ni yëpp bu ñu waxee rek mu ni sëñ Ousmane dina ñëw ma naan ah jàpp naa ne sëñ Ousmane day xat est-ce que dina ñëw. waaye sëñ Ousmane dugal nga bii bu rëy ndax lii mooy waxtasimu bi Abdoulaye jamian wala tafarqu ndax maam Cheikh borom Daaru Salaam ak gaawaan Cheikh Sidi Makhtar Kunta muy seexal kunti borom Ndiassane lañ ko duppe te ku ne xam ne ni soxnaa mi lañ jëlee woon ca Ndiassane jox ko Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall mu am mu am ci seen Cheikh ami Kunta kon lii mooy waxtasimu bi Abdoulaye jamian wala ñu jàpp ci gojug yàlla gi bañ a tàqalikoo yaakaar naa sëñ bi bi mu jàppee bis bi jël cër bu rëy jox la ko sëriñ bi war a déplacé wu ñëw sali sono xarit ni ko sëñ Ousmane de moo lay fekk si maanaam sëñ Ousmane daa xat li tegi ci moom daa diis waaye sëñ ñëw na sëriñ Medoune Diop mii nga xamante nii sali la ne nekk fa muy jàmbaar sëriñ bi jël bis bi léppam teg ko ci loxoom ñu ngi lay nuyule ak moom waaye sëriñ Talla Gueye mi nga xamante nii bi sëriñ bi ñëwee ci dëkk bi moom moo dalal sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ak moom ak sunu baay mut Seck ñooñ la sëriñ bi àndaloon ak ñoom ci liggéey ak sunu kilifa yi nga xamante ni ñoog sëriñ bi ñoo bokk nekk Touba. kon sëriñ bi mbég na ñu ngi ñaan sali gee nga jiite ñu ngi ñaan ci barke sëriñ Saliou ndax ñun waa Mbour bokk nu woon waa Mbour bokk nu woon de waaye sëriñ Saliou moo ñu ci boole bi sëriñ Moussa Kanane li tax mbuur di jiitu ci mboolem réew mi. danay xalifa yaa fa xelli meew mi Cheikh Saliou way danay xalifa ba ma nga fa mbuur muy mujjee yan ba te boobu Cheikh Mamadou Mouta daa ngi fi Serigne Chan yi boo ngi fi Serigne Saliou wax loolu. sëñ Ismaïla Mbacke mii nga ñëw nag day kenn ki sëñ Moudou Abdou Khadir sëñ Moudou Abdou Khadir di taw sëñ Abdou Khadir porte parole yoon war fee ñëw muy Cheikh Basir Abdou Khadir ñu ngi ñaan ci barke bis bii yàlla na say ndomboy tànk yokk yàlla na say garaat yokk ci barke maam Cheikh Rayen jërëjëf Serigne Ousmane. ñu ngi am mbégte bu baax di sant yàlla ju julli ci yeneenteem bi waaye di jaajëfal Cheikhul Khadim ngërëm lu dul dakk ci sunu diggante ak moom sëtam bii toog cant yi nga dégg yépp mu jóge ci sunuy mbokk jëm ci yow ak soxna Xadi mii nga àndal jëf bu réyee ki ko jëf dan koy gaaral ni ko jëf ji rëy na sunu borom dañuy sant leen ma ma dolli leen ca bii mu woote moom Cheikh Ismaïla sant ci sëriñ Touba waaye gën a jëmbat seexul Cheikhul Khadim a ko waral mu yàgg koo taxawal ci biir Mbour mbooleem ay kilifaam sëriñ Cheikh mi fi nekkal sëriñ Abdoul Khadir mu am ca ndigalam ak mbooleem baayam yépp baren ji baayam sëriñam xaritam koo xamante ni danoo bëggante ba far farsal seen ñaari jëmm danoo nuroo di sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdou Xaadir mi nga xam ne ni kàddu yoonu murit ni mu foore ak ni mu rëyee magam ju fi nekk moom nga jël teg ko ci loxoom ba ci seex Muntaxa mii fi toog yàlla fi yàgg ca wér ni ko loole nga xam ne loom la sama mag yu baaxee defoon loola da ngay wéyal xool sëriñ la ni ko bisu mbuur ba ren jii damaa am yéene lépp loo ca daan def maak yow koy ànd damay dikk mbuur gane si la waaye nekk ak yow ba waa mbuur xam ne lii ngay def am nga ci sa ngërëmul waajur waaye ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekkal sa waajur bu baax wa di sëriñ Modou am nga ci sunu ndigal bis boobee nag moom nga ñëw tey jii wax nga ko démb man ak yow ñoo nekk woon Njaasaan nga nekk ca kanamu président mm-hmm. yëkkati fa kàddu goo xamante ni mbooleem askanu sa nawe nan la ko man ak soxna Astu Kunta këram fa laa defee lépp man ak soxna maam Jaara Mbàkke mu sëriñ Kosa astuloo ñu ànde fa kaddu goo xamante ni kàddu gu yiw la waaye kàddu la goo xamante ni njiitum réew mën na koo dégg waaye kër goo xam ne kërug diine laat mën na koo dégg loolee moom nga ko tey ba jóge sali ñëwal jëmm ju baax ji ñii nag seen maam Seexul Xadim ba ci deret yii mu fi bàyyi saxaaru bësi lan fépp fooy bañ mu ruus fa bu leen fa teg kon dugg si nga foo xamante ni xéewal yoo amoon ci sëriñ tubaa day gën di yokk waaye doo duggante def si ginnaaw kon nag sëriñ bi nee na bég na sëriñ bi nee na mu ngi lay sant sëriñ bi nee na lii nga def mu ngi la ciy ñaanal yàlla nga daje cee ngërëmul sunu borom waaye daj cee ngërëmul Seydina Muhammad waaye daje cee ngërëmul sëriñ Tuubaa ba bis boobee nga xamante ni moom nga defal Serigne Saliou di ko ci sant nee na moom la ciy ñaanal tawféexi sëriñ Saliou ndax Serigne Saliou mooy doomi Serigne Touba ji mujj ci kaw suuf joo xamante ni tubaarkalla ñëpp liggéey yi nga xam ne moom la magam yëpp liggéeyoon moo mujj ci ay loxoom. kon kooku ko koy sant mboolem lislaam bi mboolem muridi waaye rawatina ñoom sëti seexul xadim yi ñoom ñoo la war a santale kon sëriñ bi mu ngi jokk kóllëre googee di la ñaanal yàlla liggéey bi nga xam ne da koy yenu ca biir sali yàlla na oyof fa nga ko bëgg a yóbbul lépp yàlla nga ko fa yóbbu àggalee ko sa sago ci barkeb sëriñ Touba sëriñ Ismaïla nee na bég na xoolam sedd na moo ngi lay ñaanal yàlla doo la fàtte mukk mukk ci barkeb sëriñ Touba kon kàddu yooyu rek lan doon yëkkati mu jóge ci sëriñ bi war a jëm si sa jëmm ju tedd ji yow ak soxna Xadi mu baax mais moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla jigéen la waaye am na jom. jigéen la waaye ku bëgg sëriñ Ismaayla jigéen la waaye ku kennal sëriñ Ismaayla jigéen la waaye lu sëriñ Ismaayla di def kenn du ko ci njëkk kenn du ko ci man kon moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla di la ñaanal yàlla sunu boroom defal la xeewal defal la sutura ci barke xaadimal Mustafa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi ne mu jotal ci ay kàddu rek. ne sëriñ Ousmane ñu ngi lay sant bu baax. nee di rafetlu sa jataay bi nee di ñaan yàlla ñu yàgg koo fekke nee sunu borom yàgg laa taxaw bu baax ak njaboot gi yépp nee sunu borom tey jii lay soog a dogal gise bi nee waaye sag mbaax ak sag woyof yàgg nañ koo dégg nun ne keroog rek la am ku koy nettali ni sëriñ Ousmane de ñaare bu dikkee ci xew-xew yu mel nii ca waañ walay dem. ne loola ak woyof rek lay firndeel. ne loola yàlla na gën a yokk. ne ab liggéey ci lool rek la gaawe yàlla na la ci yàlla saxal. nee cant gi ñu ngi koy jël di ko teg ci sunu loxol yaay ji Soxna Xadi nee li indi firnde ji mooy moom taalibe Cheikh la nee bis bi kenn mënu ko ci kenn jiituwu ko ci nee démb rek la fi indi ay teraangaam nee loola ba ni door bis bi nag la ko tàmbali woon ne ne loolu mooy firndeel ni. jokkoo gi daal benn la. ne di santaale sëñ kër Gueye mii toog. mi nga àndal. ne di ko jox wàccuwaayam bu baax. ne moom fekk na fi njaboot gi. njaboot gi sax njaboot lan sëñ Ousmane. ne rawatina nag ki ngeen jiital ci liggéey bi. mooy sëriñ Médoune nee ñu ngi la koy gën a dénk bu baax a baax a baax. nee ginnaaw yàlla bu nu ñimee ci bis bi. nee moom ak lim ci daj ci ay coono. ak alalam. nee bu jóge woon ci ñun dina métti. nee lu baree bari da koy nëbb def ko ba pare soog koo wax sëriñ Ismaayila. nee kon ci sa suuf la nekk. nee ñu ngi la koy dénk bu baax. nee yow nag kóllëre gi nu jàppante mooy. mooy mbaax gi ak woyof gi. non li ma dégg ci yow. nee loolu daal laa jàppe sa jëmm ji. nee kon nag ki fii ñëw. sab cër la. kenn ëppalewu la ci. nee noo ci doxee rek noona la ñu ngi lay sant bu baax nee jort na bala trois heures wala 4 heures ci la nu bëggoon a teertu Serigne Bassirou waaye ne jort na dina fi nekk nag ba timis nag mu jullee fi timis soog a di dem incha allahu rabbi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 sàkku ko tey ci ak de doom ngir mu jee dem waaye ruum mi ngi ci leer yi tey di naan dem fekke woo seex jiil yow jaara ci yoon wilem waaw mooy jaamu yàlla ak jëfu yiw kon fuñ ko seen daañ la fa seen yonen ba dem na ate at seex bamba feeñ ni ko tawit di tagg rekk noor ak nawet waaw leen góor yàlla leen sëñ Tuubaa taxaw maamam ci toolub Serigne Touba kenn mënu ko di Cheikh Madiba kenn mënu ko ci kenn maamam takk laxasaay dem ca tool ya bay dunde lu mu am joxe ko addi Cheikhul Khadim moom la maamam xam foofu rek la nekk moom mii amul lenn lu muy dajale loo xamante nii dina ko def ci poosam wala mu jéem a tabax kër wala muy jéem a def lenn loo xam ne dafa méngoo dara ak àdduna dani fii ak maa ngi gis Serigne Cheikh moom sëriñ Abdou Khadir mii di sama baay wuutu sëriñ Modou taaw sëriñ Abdou Khadir ba lépp lu ma am jox ko ko loolee la waajuram wa xemmem ca moom xool ko ca moom ba xam ni mu ngi ci yoon wàcc ko benn yoon mu ne ko mbuur ga nga nekk dama la fay fekk si. sëriñ Bas moom sëriñ Abdou Khadir ñëw na mbuur ba tey waaye surtout sëriñ Abdou Khadir bu mu fekk si mbuur nag ci jëmm ji la njëkke ci moom la njëkke li ko may mooy dafa tege ci aw yoon ca wàcc ko jom nag ak ngor aku sa kër Seexul Xaddim fa la jom fekk baax fa la ngor fekk baax aw fit fa la fekk baax ñett yi nag kenn du ko doon nit koy nit kee koy sàkkul boppam am nga sa jomi bopp am nga sa ngor bëgg nga sëriñ Tuubaa yaakaar nga ko doyloo nga Seexul Xaddim doyloo Seexul Xaddim mooy nekkoo ca nekk ca ay tolof tolof ba romb tolof tolof yi ca kenn gis la nga def loo xam ne ne waru koo def yii yëpp traversé na la yii yëpp jaar na ci sa wet waaye kenn gisul sëriñ Ismaïla def ak matadi goo xam ne ne ku ko gis ne àccam balay sa yàlla na la fi yàlla yàggal lii ngeen def rëy na ci sëriñ bi lool lii ngeen def neex na ci sëriñ bi lool ndax sëriñ bi lu nekk mën na ko fii rek la mën a toog waaye lii nag mënulu ko boppam yéen a ko mënal kon yéen fi ngeen mane féete ko fi moom yëg na lool mooy kàddu cant yii mu leen wax nangeen xam ne nag tey jii ki yor kàddu yoon wi dafiy ñëw tey jii sëriñ tubaa day dugg si waat biir mbuur ki fi dugg si dereti seexul xadim la waaye moom la magam yëpp wóolu woon ca am na ngërëmul baayam Seex Abdu Xaadir kii fi toog magama di Seex Mamadul Muntaxa waaye gërëm na ko Seex Sidil Muxtaar gërëm na ko sëriñ Alxaaji Baara gërëm na ko Seex Muntaxa mi jokk góor la kóllëre googee Seex Abdu Xaadir dem na tey tey nag bu doon dund ba tey moom bu demee jëf yaa fi tey royal ci jëf yi mu jëfoon xaaral ma wax jikkoom ndax lee nga topp jikkoom sunna si kët ngir moo daa faj bu keneen muhaamalatu naa si nag li mu def moom lépp a jag di sàkkal kenn dig masul di yéena safaan kër yëpp yëpp fi moom daa mel ni diine moo ko moom sët imaam moo wooteel eh, Serigne Touba Xaadim Rasuul aji màgg ji waaye ku ne xam ne ni sunu baay bii nu feggool muy sunu baay mut sekk weeru yàllaa ngi nii mu dagg ay yitteem dagg mboolem activité am di ànd ak sëriñ bi ngir di ko taxaw ci bis bii nga xamante ni ñoom ñaar ñoo ko bokk ndax gan gii ñëw day wasilaam di kilifaam muy sëriñ Basiiru euh, moom sëñ ab moom sëñ Abdou Xaadir te maam Serafal daan wax naan jàpp leen ci liggéey sëñ Bàmba bi ku si jàpp mu dem ku si jàppul mu dem jàpp leen ci mu mel ni yéen a koy doxal ngir des sag bi teraanga yii ngeen gis nag Baye Modou sekk mii di kenn ci Cheikh Mouhamadul Basir weeru yàllaa ngi dafa tëj këram heure bu ne sëriñ bi da koy woo ñu ànd ngir lu jëmale bis bi kanam kon bu yëkkati teraanga yu am solo yi kon ñu ngi ñaan ci barke Sëriñ Abdou Khadir yàlla sunu borom yokku see xéewal ak mbooleem sunu kilifa yi àndal kon da lay jox kàddu gi te xam naa ni Cheikh Basir mi ngi ci yoon bisimilah. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah. mbooloo mi ñu ngi leen di ziar baax di ci jiital sunu sëriñ bu tedd bii sëriñ Ismaïla Mbacke mu sëriñ Modou Mbacke mu sëriñ Abdoul Khadir di sunu xarit di sunu jëwrin di sunu soppe sans borom dogal nag mu defal nu tawféex ñëw fii ci mbuur baddil nu fi baddila naa gii mooy woote fi bis bu doy waar bii sant nañ ci yàlla nag. mënoon na ko yóbbu ci ñeneen waaye dañ koo indil mbuur gii ngir ñu am ci tawféex kon sëriñ bi ñu ngi lay sant ci loolu. bis bi nag lii day soog a tàmbali ndax ki waral bis bi ak kii bis bi mi ngi ci yoonu yàlla na ko yàlla indi mu agsi ak jàmm léegi la ca des sëriñ Ismaïla daa ñëw mbuur jël alalam alal ji ka ca jiitu mooy sëriñ Talla Gueye mu sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Abdou Khadir ka ca topp sëriñ Medoune Diop mu Cheikh Abdoul Ahad mu sëriñ Abdoul Khadir kaca ca topp Mouhamadou Seck mu taalibeb Cheikh Cheikh Bass mu sëriñ Abdou Khadir kon sëriñ Ismaïla yow sa sa sa waa kër nga jël yow nag. dimbalil nit mun ta weesu lii boo boo boo woote woon ci woowoonu sax bis bi jag ndax kuy defar bis kuy defar bisub jàmbur sa bis du mat a wax lii lépp nag maanaam taraanga ak jëf ju baax sëñ Amdi Xadi Baay Faal ba nee na làmmeñu borom sobe la ca waaye buñ ko ko nettalee nag aw yiw la Mbàkke dama leen woon bu bis baa ñaanal nu yàlla rek ñu am wér kon nag lépp ñaan sag ñaana nangu rek moo tax lii lépp am waaw sag ñaana nangu rek moo tax lii am ndax ba ba ne càpp dama la ni Mbàkke ñaanalu rek soo nu ñaanalee rek lu ñu bëgg dinañ ko def ñaan nga nag moo dikk ba lii ñu def ko ma ànd koog sama maggee su ñaari baay bokk benn baay ma ànd kook sama soxna sii nga xamante ni moom la ma yàlla booleel muy muy muy di taalibe takk ndiggam laxasaayu ànd ak man liggéey lu ma Serigne Touba liggéey la ndax man ëmm ak fay sëriñ Touba nag mi am mi mën a fay maa ngi ñaan yàlla na ko fay. ab murit nag li koy noppal mooy mooy doonuk der rek takk ndig laxasaay sëriñ bi xam naa ne kàddu gi bett na ma waaye lii sax yéene wu ma ci woon amee ay kàddu waaye nag lii day mel ni ab barkeelu la ci ndax ba bis bi amee ba nëgë ni fu nu dem man ak médu médun Jóob mii ak sëñ Xaadim danaa ma Momadou bisimilah kon bisimilah jooju nag la ca topp muy alhamdulilahi rabil alamina loolu mooy liggéey bii wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu léegi ki ci des mooy bi ma demee ba yàlla dogal liggéey bi ñëw ji sama kaw biis damaa woo sama jëwriñ di sëñ Malick Diop moom mooy jëwrin bi xam ne moo yore fédération euh, taawuna ala xidmatul xadem soppe Cheikh Abdoul Khadir moom mooy jëwriñ ji moo nekk Dakar moo ñëw fii ngir wétti silima ci bis bi ak ñi nga xamante ni ñoo bokk kuréel bi kon sëriñ bi ñaan gi ma la waxoon ñaanal nu rek si na newoon naa la defal nga ma lu ma kenn mus sa defal waxuma lii waaye dinaa la defal lu ma mus sa defal kenn mooy ànd ak yow takk ay rajo waa Mbour gépp di ma dégg ci kenn mus koo am ci man waaye nag ku ñaan ñàkk boo jëndee am kon wasalaama aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu di sant nag sama baay faal bii sëñ sëñ sëñ kii dama ko ni Modou mbaay dama ko ni kama jëm saa bu ma waxee danaa ma nag ak baay ab baay faal laa ndax sëñ Modou dama daan wax naan ana sama baay faal bi moo tax ma indi la baay faal bi ni ko bàkkal ma ko ci Seex Ibra ba mu xam ni lépp dëgg la looloo tax ma def ko waaw moom moom it na sëñ mi nee na nga ànd ci moo tax ma moo tax ma luqali ko fam ne ni ko bàkkal ma seex Ibra ba sëriñ bi xam ni lépp dëgg la Mbàkke jërëjëf ñi ngi lay ñaanal sa ci kàttanu yàlla bis bi yàlla na nga ci doolee am ndam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu